ko waa dikk waa division des investigations criminelles ñi nga xam ne ñooy daas ak ministre yi fas dem ca diwaanu dikk andi ci ay leeral Alioune Tine moom nag daan nay rafetlu bu baax baax enquête bi nga xam ne jamono ji ubbi nañu ko ci rapport bi nga xam ne Cour des comptes def na ko ci xaalisu covid bi ba ci biir journal bi di Sud Quotidien ñu fekk fa Birahim Seck bu Forum Civil moom nag daan nay wax ne jamono ci d'accord nañ ne procureur a doxal leen ñoom tima ngir nag ministre yi nga xam ne ñoo ngi leen ciy tudd yéen kaay gi di wal fajiri nee na ñi nga xam ne ñoom la ñu joxaar bi baaraamu tuuma ne dañoo luubal alalu askan wi ci xaalis bi nga xam ne moom lañ jagleloon coronavirus képp koo xam ne nee nañu yow yaa ko def lu toll ci fukki ati kaso mën nañu la koo tëcc yéen kaay gi di réew mi ko di jaay nee na mbir mi jeexagul la ndax collectif suñuy milliards du rees ñoom niki démb déposé nañu ca taabalu procureur lu ëpp téeméeri plainte yéen kaay gi di leen fo nee na nag ñi nga xam ne ñoom la ñu joxaar bi baaraamu tuuma ne ñoo def luubal gi ci xaalis bi nga xam ne moom lañ jagleloon coronavirus bi ñooñee seen wàllum patrimoine danañu ko saytu maanaam seen alal seen moomeel danañu ko saytu xool ñaata la bu ko defee recouvrement bi gën mën a yomb yéen kaay gi de Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu société civile bi ñoom jamono ji li nga xam ne moom la ñuy sàkko maanaam mooy enquête boo xam ne dafay tëddee njaxanaay enquête boo xam ne du am parparloo du am kuma mu am ndey ak kuma mu amul ndey waaye tamit enquête boo xam ne maanaam bu xóot lay bu dëgër këcc loole la waa société civile bi di sàkko ci rapportu Cour des bi nga xam ne fësal na ay détournement ak yoo xam ne jéggi na dayoo yéen kaay njiitu l'observateur nee na ci semaine bi léegi tey gars yi ñu yónnee leen ay convocation ngir nag ñu daal wuy ji te nag soo muytuulee fi ñu jëm mooy tere leen ngir ñu génn réew mi bi nee na ñi nga xam ne sax ay complice lañu ñooñee tamit danañu leen traqué maanaam danañu leen toppoo ministre bi ñu dénk wàllum yoon di Ismaïla Madior Fall ci biir journal bi nee na Cour des comptes bi defuñu ko ngir denc ko dañu ko def ngir nag daal si enquêté xool ak ñan ak ñanam ñoo luubal alalu askan wi yéen kay gi di wër ñi nga xam ne njort nañu ne dañoo sàcc alalu réew mi yéen kaay gi de turbina nee na ministre yi ak daas yi léegi tey ñu commencé jaba jonge diggante dikk ak seen kër a yéen kaay gi di réew mi ko di jenxëy di ñu xibaar nan ñu ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax bunduxataal gi nga xam ne moom la ñuy bunduxataal militant yi bokk ci parti Pastef bu Ousmane Sonko ak jàpp gi ñu leen di jàpp maanaam arrestation gi ak kasu yi nga xam leen ciy dugal provocation nga xam ne moom la nguur gi nekkee jëmale ko ci Pastef loolee la waa coalition Yewwi communiqué yéenekaay gi di Walfadjri nee na lu toll si juróom-ñeenti membre Pastef sa diwaanu Jurbel démb mandat nañ leen dépôt maanaam seen guddi gu njëkk ca kaso ba fanaan nañu ko ñooñee opération wër ndomba lañ doon def maanaam di sensibiliser xale yi ngir nag ñu daal di mën a bindu ci liste électorale yi ci la ñu leen kapp-kàppal teg leen loxo yóbbu nañ leen sa kaso ba yéenekaay gi di Walfadjri nee na jamono ji doxinu Macky Sall ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo nekk agent marketing bu Ousmane Sonko jamono ji lu Sonko am ci lu jëm ci wàllum politique ginnaaw yàlla Macky Sall la ndax mooy doxalee anam boo xam ne maanaam dafay gën a yëkkati Ousmane Sonko yéenekaay gi délibération nee na am na lu toll ci fukk ak juróom ci waa Pastef ci diwaanu Ndakaaru ñoo xam ne tegoon nañu leen loxo démb am nañu retour de parquet tey jii boo muy tuulee mën nañu leen a jébbalaat procureur journal bi nee na am na benn waayu Pastef bu tudd Daouda Kaloga ca diwaanu Kër ma Massar teg nañu ko loxo li ñu ko toppee mooy woote lu jëm ci wàllum fitna yéenekaay gi de Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu maître Abdoulaye Wade ginnaaw juróom benn at yoo xam ne ma ngi woon ci diwaanu Ndakaaru Abdoulaye Wade daat nay dellu ca diwaanu France yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ak 24 heures génn ñu réew mi yóbbu ca diwaanu Turquie nee nag foofee suuf si nga xam ne moo yëngu lu ëpp ñaari junni ak juróom benn téeméeri nit ñoo xam ne faatu nañu fa yéene kay gi di enquête nee ëpp na ko jege jege na ñeenti junni ci ay nit ñoo xam ne ñoo faatu ca diwaanu Turquie yéene kay gi di Vox Populi ak l'Observateur xëy di xibaar naa ñu niki démb la ñu doon inauguré université Cheikh Amadou Bamba ca diwaanu Touba Serigne Mountakha Mbacké Bassirou daan nay jaajëfal a baax njiitu réew jëm ci wàllum assainissement bi ak wàllum tëli yi moom moo ko res ak lu jëm ci wàllum fonctionnement université bi bëri na engagement yoo xam ne Macky Sall jël na ko niki démb laas yéen a kaay nee na lu ngeen ci xamul Macky Sall dafa waxoon Serigne Mountakha na ko liggéeyu université yi bàyyi ma ma liggéey ko yéen a kaay gi nee na Serigne Mountakha daan nay loo xam ne bëgg-bëggu Serigne Touba Xaadimu Rasuul la woon yéen a kaay gi de la sa ñu xëy fekk faatafaatiina nee na nag combat nga xam ne moo dox digganteem ak Bombardier combat bi du man ñaari minute yéen a gi de sunu làmb nee na jamono ji Bombardier pare na ngir bombarder